la daloon xaas bekaay mbay ca tuubaa dey dellu na dalaat jëmm jii di Mansour Sy Djamil ca Tiwaawan muy lan gàcce goo xam ne daal mën nañ ne moo raw bombe nucléaire gàcce goo xam ne nit ñi dañu daan sut ne la jàkk xam ne yaa ngi fees jël ak gàcce ndax lan wax joo xam ne waxoon nga ko rek ndax sa ay propre intérêt yoo xam ne moom ngay préserver Mansour Sy Djamil dey moo ne woon Macky Sall ci bi nga xamee ne Sénégal yi ñu ngi jaaxle ñu ngi tiit ci réew mi fi mu nar a jëm moom day dafa waxoon Macky Sall ne ko Macky leen rek laa lay ñaan mooy gëmmal dóor ça veut que li nga bëgg a def bul tiit bu ragal bul dellu ginnaaw gëmmal nga def li nga bëgg a def mooy gëmmal nga dóor bul yërëme ci koo xam ne day lu mu bon bon ñetti nit ak ñeent jébbul nañ ci yow yaakaar la àdduna gi ñu nekk ak alaaxira gën jëm nga sañ a taxaw sacrifier leen ndax alali àdduna loolu de yaakaar naa ne bu jamono doxee bala nga bëggoon antuwul nga taseeg ka nga bëggoon a sacrifier ca ñam àndal foog naa ne gàcce foo jaar mu war laa rey nag rawatina nga di kilifa ñu lay woowee ab maanaam ab ab ab sëriñ ci gàttal. daara yi internat Soxna Diarra Porokhane 2 pour l'éducation des filles et la mémorisation du Coran ngeen ànd si ak le directeur Serigne Abdoulaye Yaqin mbokk yi innovation moo ngi nii ndaxte nag daara ji uniquement pour les filles la li ko tàmbalee six ans ba huit ans la ñuy recruter fii nag si daara ji mbokk yi si durée de quatre ans ñeenti at dong la ñuy dérouler programme bi tax xale bi mën a mokkal alquran ci anam yu wóor te wér boole kook dina am yar ak teggin ndax nag fii jàpp leen muraay bi obligation la waaye tamit am nañu personnel boo xamante ni ñoo leen di toppatoo toppatoo bi ngeen bëgg seen xel day daal fu ngeen mënti nekk macha allah daaray internat soxna jaara poroxaan de ginnaaw nag mbokk yi bu fi xale bi amee six mois dina am basu alquran dina fer it ji yemuñu foofu de indi nañu si biir programme bi français waaw ndaxte àdduna moo fa toll xale bi dina mën a xam àdduna si langue bii nga xamante ni mooy suñu langue officielle mu mën ko utiliser ba mën a bokk si administration ëllëg bu fekkente day continuer jàngam dinañ ko jàngal mbooleem programme grammaire orthographe vocabulaire jàngal ko également mathématique waaye nag ña nga jiital alquranul karim foofu mbokk yi formation informatique ndax mooy outil bi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo fii àdduna toll si àdduna wërngal këpp xale bi dina am base xam lépp luy logiciel yi ñuy utiliser jëfandikoo xarala yu bees yi daara yi internat soxna jaara poroxaan de am na ay bàjjan yuy taxaw xale yi ni leen ko waxe woon suba ak ngoon guddi ak bëccëg ku fi indi sa doom incha sa xel day dal ndax li nga bëgg loolee la lay defal jàngale bu xarañ ndax nag ñun recruter dañoo xam wàll wi am pédagogie xaleel xam am xam-xam doon nekk si sécurité dinañ ko toppatoo muy lekk di naan ak it set cell gi lépp daal yemb na fii waaye nag mbokk yi di fàttali recrutement annuel bi tàmbali na at bu nekk nag jamono ji la tàmbali di recruter te nag di leen fàttali léegi ñu clôturer ndax nag nombre de places yi dañ ko limité. dal leen ak jàmm ci seen bi di IYAT TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal rafet rafetlu ànd beeg chaîne bi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen mbay pex day jël na wàllam fële ca Touba mooy dafa waxoon ne Macky Sall troisième mandat lañ lay demande ci bi nga xamee ne réew maa ngi tàkk ndax bañ troisième mandat jamonoy dox ba mu taseeg Ousmane Sonko fële ca Touba waaye nag mu am gàcce goo xam ne ñëpp xam nañu kii gàcce a ngi koy rey mënut sax siggi ay gëtam xool Ousmane Sonko ci biiri gët te nag xam nga yàlla daa dogal gis nga nit ki Cheikh Blane Mbacké daa wax ne wax ju am solo nee woon na de koo man a doon ci àdduna boo waxee dëgg sénégalais ñu ngi lay xaar waaye boo waxee lu dul dëgg sénégalais ñu ngi lay xaar nit ñi boog ñu ngi lay xaar. te itam li banki tànk bankutum xel nit dana sukk bati wóomam di la xool wala boog sëkk dana sukk bati wóomam ci suuf wàcce ay bëtam ci suuf dana sukk ay bati wóomam wàcce ay bëtam ci suuf mais xel maa ngay xalaat loo xam ne jëf joo jëfoon la wala wax joo waxoon te boo xamoon li muy xalaat ci yow foog naa ne xaaru rek ngay bëgg kon kilifa lépp lu muy wax dafa war a nekk loo xam ne maanaam na nekk intérêt général mais pas intérêt personnel Mansour si Djamil day bi mu naan Macky Sall gëmal dóor ku ko waxoon ne un jour viendra Ousmane Sonko mii ngay wax pour Macky Sall gëmu dóor ko ak ñi mu àndal dana dem ba nekk chef de gouvernement nekk premier ministre ci gàttal war laa rencontrer ngay xapp-xappali bët ak gëm ak ci ko yaakaar naa ne daray àddina du la ko jaral kon ngal la waay di leen sóoraale ëllëg tey bàyyi xel ne bis maanaam loolu olof njaay naan ëllëg du añ du reer mais lu mat a seddaale la lu mat a la yaakaar naa roy suñu mag ñi lu jot la roy suñu mag ñi lu jot a jot la te foog naan day Mansour Djamil lii mu doxalee keroog ci gëmmal dóor ja yaakaar naa ne day maamam amul amutoon ci moom benn fierté ndax yaakaar naa kilifa ak diine warul doxalee noonu kilifa ak diine warul doxalee noonu mooy dam bay sacrifier saw askan ndax say propre intérêt exemple dey tey jii boo xoolee suñu mag mu baax mu mel ne Cheikhul Khadim bi nga xamee ne. way juróom bu góor génn àdduna di Mamour Anta Sali Mbàkke ñu ne ko kat sëñ bi yaa fi sës pour atteel Mamour Anta li kaay jege ko lan la leen wax xalaatuma ko def lu nu mel ndax man de ma dem di jege buur bu àdduna dafa mel ne comme niñ ko waxee rek ba àgg sax ci bindu xasida waaw am na benn way wu ci way wu am solo wu sëñ Musaa Ka way muy xaaloo li yar kan mooy jawaabi xaadi bàmbaa ko tontu woon wa anta xaadi ba xaali moom jaxaate naa ko irkan jëngal te jublu bunt buntu buri cay kon Cheikh Bamba naa ko hasbiyal ilaahu dëhran wala ilaha illallahu naan ko yàllaa ma doy tey de doylu naa ko ma indakum yan fadu jàng naa ko naan ko billaahi man alal du tax du tax ma jeng jàngal ma saaru xóot jàngal ma saaru xóot nekkoon doo jeng barke alxuraan sëñ bi xoolal bii engagement ak gii gëm yàlla ak gii doyloo yàlla ndax lii amati na ci ci ci sëriñ léegi sëriñ boo xam ne boo gisee burub àdduna tàqali ko sa sago bu nee wow na nga ne kong bu nee nga ne xipp bu nee juut na nga ne wang te yow burub àdduna la te te kilifa diine la alxuraan dellu waxaat ne innal muluka ida daxalu xaryatan nafsaduha wa jaalu aizzata ahliha adillatan wa kadalika yafaaluun gis nga burub àdduna moo gaaw ci détruire maanaam kilifa diine kilifa diine gu bëgg a torox na la kilifa yi aada yi di di seet si léegi tey ñu toroxal la dara ba doo tekkee dara ci àdduna kon lépp lu ngeen di def ak lu ngeen di wax di leen ci jiital yàlla jiital ci ñi leen yàlla booleel nguur goo mën a gis day jeex mais ñi leen yàlla booleel ilaa yawmil qiyaamati lakbar ñoom ak yéen ay ànd kon lan moo fi jar ngeen di wax yenn wax yoo xam ne ni bis day ñëw ngeen di rus Mansour Sy Djamil di démb bu gàcce bu doon lekkee gàcce dalay lekk yow gàcce gi dalay lekk ba nga ba ba maanaam ba nga trop tot Sénégal dëkk bu naqaree wax wax ñu naan da ak da ñàkk teggi nag kii kilifa la ak sëriñ la ak nangam sëriñ ba ci lan sëñ bi ñun ñëpp ay ay boromi xel lañ tax xel jëriñul luuru xalaat sëriñ bu defee loo xam ne nii wala bokk kuy woowee sa bopp sëriñ sax laay wax def jëf joo xam ne ñëpp xam ne lii àndut ak yar maanaam àndut ak bëgg saw askan da daañ nga koy wax Mansour si Djamil li mu doxalee woon ci jamonoy Macky Sall ku ne xam ne ne rafetul talu ñaaw la wallaay lansim gëmmal dóor Sénégal ngi wut wàllu woo kilifay diine yi ngir ñu ñëw tinu leen yëngu ñëw naa ko gëmmal dóor gëmmal ray gëmmal dal seen kaw bul dellu ginnaaw amal fit yaa yore lépp wax ji loolu la ëmb wax ji la ma waxoon lépp loolu la ëmb lii nag yaakaar naa ne jàngat la ci boo jàngat jàngat la bu war a nekk ci loo xam ne ñëpp war na ñoo xam ne yàlla rek a yàlla te itam ci lañu war a doxee nag bàyyi di waxee seen bakkan kilifa du waxee bakkanam Ousmane Sonko nag yéen ñi nga xam ne yéen nekk di gam-gam le seen bopp ak moom bis bu yàlla sàkk yàlla war leen ne kii du seen nawle du seen morom du seen màppandoo da di gis démb bu mu demee Tiwaawan accueil bi dalal ba tertu ba mel comme si que ne sax niwul ci gàmmu nit ñi di ko maanaam mel ni ñu ne ci campagne nit ñi sam ko fu jëm ñu topp ko ndiiraan mi topp ko nga xam ne kii li mu am nag mayu yàlla kese la waaye du leneen ay pexe mayu ko ko ay tappale mayu ko ko ay ay ay ay njunjaaj mayu ko ko la Abdou Guèye sekk waxoon rek dane woon maanaam kii moom xutbu la wala mu jaddid la xutbu la wala mu jaddid kenn xamul lan la waaye nag yàlla buy mayee moom ak mayam xamul doy na day sotti rek te Ousmane Sonko li mu am ni mayub yàlla la Ousmane Sonko yéen ñi koy takkaleeg seen bopp xool leen parcours am ak seen parcours xool leen di xool leen discours am ak seen discours xool leen aussi li nga xam ne maanaam mooy programme ak seen programme xool leen cofeelam ci nit ñi ak seen cofeel ci nit ñi di ngeen xam ne kii nawloowu leen ci benn côté ci yi ma fi lim kon bu ngeen taxawee di ko tànnaas ak di ko xasaka saaga mi nga mel ne ngeen jël sémmiñ di gor seeni yeel Ousmane Sonko derem bi wax naa leen ba tàyyi tooke la képp ku ko bàyyiwul a wax wax ju ñaaw bàyyiwoo ko wax wax ju bon bàyyiwoo koo jaxase di ko diaboliser kas fenal ne la wóor na yow moom chaque jour que jafee da nga gën a dellu ginnaaw te loolu leer na yaakaar naa dafa am benn slogan bu Sénégal daan wax mooy sonkoo ku ko songu sànku sonkoo ku ko songu sànku te loolu yaakaar naa ne dem nañ ba teg suñu bët ñun ñëpp ñi ko daan songu ñëpp sànku nañ laaj leen seen bàyyi Macky Sall bi taxoon ngeen doon jaay seen ngor Macky Sall boobu day tey jii yaakaar naa ne mu njëkk a sànku ñëpp ndax réew mi nga xam ne fi nga amee lépp fi nga jàngee fi nga juddoo fi nga yaroo defee fi lépp dem ba tey amatoo ñemewu fee teg sa tànk ndax man waxuma la sax maanaam waxuma la sax maanaam ñoom ak état waxuma la sax Macky Sall ak état waaye Macky Sall ak population Sénégal ranking bi dox seen diggante ak mbañal gi ñu ko bañ jéppi gi ñu ko jéppi jamono bii loolu rek muyu ko mu dugg ci réew mi. da ngeen di gis nguur ku def cim réew fukki at ak ñaar dem bay génn réew ma ñu lay saaga nday di lay yuuxoo mere la bay jooy ba ñi lay mere di jooy xam nga ne ñuy mere nañ la bis bu ko yàlla nattoon ba mu jaar ci réew mi ragal na ne Macky moom boo yeexee ci loxoy gone lay deewee bi nga yore lépp nag xalaatoo woon jàpp ndaw ñi di leen rey di leen tëj di leen di leen di leen di leen def lu la neex foog ne yow da nga sax di def pexe pour noo fi saxee ndaw ñi jàkkaarloo yow ne la ñun dey pare nañ pour jaay la bakkan tey jii anamu ndaw ñi atteindre nañ seen objectif liñ bëggoon am nañ ko mooy yow ak ñi nga àndaloon nga dem ca àll ba tey ji loolu am na moo tax ngalawaay di leen suuraale ëllëg ëllëg lu mat a suuraale la ëllëg du anjuréer mais mat a sédd la ñi daan wax wax ju ñaaw waxi jaxase waxi Macky Sall pour mu rey Sénégalais yi yéen ñëpp tey am ngeen gàcce yéen ñëpp tey am ngeen gàcce kon nit ki deel suuraale ëllëg ëllëg day lu mat a suuraale la Macky Sall dafa feeñal feq yi feeñal soi-disant sëriñ yi wooy seen bopp ay sëriñ te duñu dara ci ñi ma ko war a wax ña doon dooni sëriñ nag ba léegi ñu ngi dooni sëriñ parce que olof ñay ne na fa ndox daan taa ba léegi maanaam maanaam la juwa jeexal jógu fa sëriñ moom ba léegi lu am la lu ama am la ñooñu nag mosuñoo soppiku mosuñoo wax lu ñu leen xeebe mosuñoo dellu ginnaaw benn yoon ci li nga xam ne maanaam moom la leen maanaam moom la leen seen ngor may mais sëriñ buy jaay sa ngor di wax wax joo xam ne pour jaxaseem réew pour taalum réew la après nga dem tëdd fële taal see kilim tanaan ma yow man sëriñ laa man kilifa laa xam loolu yaa ko jàppe sa bopp mais kenn jàppewuloo ko yaa jàppe sa bopp sëriñ waaye kenn jàppewuloo ab sëriñ loolu moom na leer jërë ngeen jëf